waaye nag président Macky Sall joxe na ndigal pour que deuxième phase bi département Kébémer bokk ci. gis nañ bi nga xam ne joge na Sagata jëm mbaki Kajoor gis nañ itam ne forage su keneen njobb tey bënn na xañ na château d'eau moom la ñuy moom la ñuy xaar piste bi nga xam ne mu ngi jógee euh, euh, Ndande jëm Kàbb Gay euh, pare na ak yeneen piste waaye nit ñi dañ ko naan kupp dem ne géej gi la ñu jëm léeg-léeg sax gis ko dafay am liggéey. ñu wutal ko emploi mu bàyyi fa emploi bi jël bëgg jël géej gis ko nga xam ne buñ ne ko yoonu Nicaragua ma nga juróomi million am au mu toog Sénégal def fi commerce def fi activité agricole def fi leneen day jël juróomi million yooyu tasaare ko pour dem Nicaragua donc xale yi xaw ma man lu leen di yóbbu lu dul jàpp ne fële la ñuy gis ci tele yi la gis ci image yi la ñuy gis ci vidéo yi xañ na moo lëmbaajee seen xel